alxayri mbaadu dafay bëgg jiib ci diggante oustaz Modou Fall ak waa yaa awa jëy bu TFM moom it di oustaz Modou Fall gis nañ ci benn vidéo boo xam ne nga naan yaa waxal ma sénégalais yi gannaaw ba ñu topp ci suñu diggante ñun ñaar saa su nekk ñu ciy loo xam ne seen yoon nekku saa nekk ñu ciy posé ay question saa su nekk ñu lëjal ñu ci saa su nekk lu ñu dégg ko ci léegi nag leeralal sénégalais yi xamal leen ni leen juin gii ñu jëm dama lay takk nga nekk sama soxna ma nekk sa borom kër loolee la oustaz Modou Fall wax ci vidéo bi ñoom seen diggante ñoom am nañu compli complicité bu doy boo xam ne dox na ci seen diggante tax na sénégalais yu bari di laaj ana lan moo nekk ci seen diggante oustaz Modou Fall nag tontu na leen xamal leen ni leen léegi nag le 15 juin wax ji dana jeex tàkk danaa takk yaa awa jéey mu nekk sama soxna ma nekk borom këram xanaa su boobaa nag diggéen ñu noppal xanaa su boobaa diggéen ñu bàyyi ñu mën a dund suñu dund xanaa su boobaa nag question yi ngeen di laaj di ngeen am aw tontom moom la tontu nee na nag léegi yaa awa moom moo di waali Ballago Seck Waly mu ñu séen ci fi nga xam ne moo di ca rond-point Sipres gi nekk fii ci Ndakaaru Njaay mu dawal ab otom ba benn gendarme daal di koy arrêté ni ki démb la daal di xew moom it di Waly Ballago gannaaw anniversaire am gi nga xam ne ay mbokkam ay am di jàmmam ay xaritam ay soppem ñëwoon nañ doon ko ko souhaité mu daal di génn ak aw otoom binaaw bi mu génnee nag moom Waly Ballago Seck benn gendarme moo ko arrêté xamuñu ci ban infraction ci la ko jàppee waaye gannaaw ba mu ko arrêté doomu faramaaren bii daf ko daal di topp sañaxal ko ne ko nag dinga ma bindal ma daal di dem sama yoon ndaxte temps dafa seer lii du ma ko nangul benn doomi aadama nit ñi def aw ndiiraan ut si Wally Ballago Seck jël seeni téléphone di ko jël ay vidéo naan ko demal yaay le chanteur du peuple yaay le choix du peuple yow yaa fi nekk Wally di bañ da kandaare ne du ma dem fii ak bindalu ma maanaam lenn li du ma ko nangu benn yoon du yàq sama temps bi téye ma fi arrêté ma ba noppi itam naan ma demal sa yoon téye samay papier loolu du ma ko defal benn mindeefu doomi aadama moom Wally Ballago Seck lànk la def ci kanamu gendarme bi mayu ko benn yoon fu mu yekkee aw nakam fu gendarme bi dem mu daal di koy topp Wally mu sol lu vert sol aw tëneem fu gendarme bi taxaw waali taxaw fa lu mu wax waali delloo ko ko dem sax ba naan ko danga may bindal par la force ndax nag doo yàq sama temps bi téye ma fi yow yaa ma arrêté comme yaa ma arrêté nag di ma bindal ma dem fay ji ak fu ma ko mën a fayee ak lu ma ci mën fekk itam bindal ma dong loolee laa ci bëgg li nit ñi di coow jamono jile mooy benn vidéo boo xam ne ñaari élève ñoo ci nekk di xeex kenn ka war kenn ka di ko dóor dóor yoo xam ne ku ko gis sa bi dafay daal di jeex waa ji doon filmer ñoom ñaar ñooñu la ak ci waroon waa ko dóor ñoom ñëpp daal nañ teg leen loxo jàllale leen defeere leen ngir fas yéene leen àtte ci weer wii di ñëw ñoom ñaar ñooñu leen ginnaaw coow li ni mu nee kurru kenn ku ci nekk di ci wax say version naan ñaar ñooñu ay assassin lañu muy ku doon filmer ak ki war doomi jàmbur ji di ko dóor dóor yu méttee méttee am na ci koo xam ne moom leeral na yëf yi ak na mu demee nee na yëf yi ni demee leen rek la ki war ci kaw booy bi tëdd ci suuf ñoom ñaar ñoo bokk benn classe bu ñuy jàngandoo ñoom ñaar ñooñu nag ki nga xam ne moo ko war mooy responsable classe ba ñuy jàngee dañoo nekk ci classe bi di def cours français ci jour boobu le moom mu nekk ci ginnaaw di perturber kuur bi de loolee moom it di responsable classe bi gestu ko ne ko tee ngaa bàyyi li ngay def dañuy jàng mu xool ko xoolaat ko ne ko yow góor jigéen dëggantaan nga faale wu ma la lijjanti wu ma la loole moo merloo responsable classe bi ba bi ñu génnee ñoom ñaar ñu jox xor ba ay baat kenn ku ci nekk jox sa moroom ay kàddu waa ji ñu war ci boppam di ko dóor moo ne ko nañu dem topp ko di ko sañaxal lenn lu ci nekk mu yekk ko ko ci musiba ak mbelengaan topp ko naan ko góor jigéen nga ndax dafa jàppoon ne moom moo ko mën fuuf ba fu ñu wéetee ñoom ñaar mu daal di koy defal affaire loolee mooy li waral ñoom ñaar ñuy xuloo ba dugg ci benn tabax gannaaw duggee ci tabax bi nag ci leen waa ji jël ñu ab vidéo boo xam ne ku ci dóor sa morom ba mën ko bu boobaa ñu dugal ko ci li nga xam ne moo di ci groupe classe bi ñëpp mën cee teg seen i gët ñoom ñaar nag ci la ñu jàppante waa ji war ko di ko dóor dóor yi méttee métt yëf yi nii la demee waaye tekkiwul ne waa ji moo ko jàpp ñu kompaloo ko ñoom ñaar di leen dóor nekkul itam ci wetu école bi dañoo génn koy dem ci seen wetu kër foofee lañ ko daal di defee ci benn tabax boo xam ne ci lañ daal di dugg waaye nag yëf yi nag ginnaaw ba mu xewee ay waa bi dem porte ji plainte ci lañ daal di ñëw ñaan njekk ñun waa école bi kenn ku ci nekk def nga ci li a waaye terewul léegi nag coow li jug na ñëpp a ngi ciy wax waaye ñi ciy wax nañu tey te xam nañ cay waxee bu baax a baax a baax booy bi ñu doon duma di ko duma ba mu ne waali moo njëkk a tooñ moom moo njëkk wax wax ju ñaaw jëme ko ci ki nga xam ne moo ko doon duma maanaam ci gàttal la ca gannaaw vidéo bi la ñu xool waaye war ñoo xool rek li nga xam ne moom la ñu gis ci vidéo bi ki ñu gis ci benn vidéo mu mel ni ku ci amee aw sàññ moom moo di yaa awa rasul beneen yaa awa bile dañu ko daal di poser boo xam ne question bu ko déranger la journaliste bu jigéen bi dafa jàkkaarloo ak moom gannaaw ba ñu demee ca campenal dafa yóbbu ay ndogu ko jagleel ñi nga xam ne ay prisonniers yu jigéen la nekkee foofu la ca camp moom it yaa awa rasul ndaw si daf koo laaj ne ko ana moo waral yenn rôle yi nga koy joué ci infidèle muy ay rôle yu indécente nga ci def ay gestes yoo xam ne gestes yu doy waar la question boobu la dafa déranger yaa awa rasul mu daal ne ko yow mii di ma laaj question bi la da ngay ci Ibou Guèye moom mi nga xam ne mooy bind série boobu la nga daal koy laaj question ko posé neexu ko benn yoon ki nekk ci li ko neex jamono jile mooy Aliou Cissé El Tactico El Tactico xam ne moo jël coupe de Afrique ñu weesu El Tactico bi nga xam ne mu ngi waajal coupe di monde gii ñu jëm moom mi di El Tactico ma nga ca Casamance ci dëkkam ga nga xam ne fa la bàyyeekoo dëkk ba mu soxeekoo jamono jile fa la nekk di dund ak i mbokkam di wëreelu ak a xool dëkk bi na mu mel moom mi di Aliou Cissé nee na am naa fierté ngir toog ak sama waa dëkk gis nañ ko ci benn photo boo xam ne ay jaaykatu jën la ca toogal ba daan ne les choses les plus simples sont toujours les meilleures moom Aliou Cissé loolee la daal wax teg ca respect à tous femmes courageuses maanaam mu ngi toog ci wetu jigéen ñoo xam ne ay jaaykatu jën lañ xamal leen ni leen li gën a simple ci àdduna gi ñoo moo gën a baax waaye tamit nag maa ngi jox cër tey bàyyi xel bu baax a baax jigéen ñi nga xam ne ay jàmbaar dëggantaan nañu liggéey dong la ñu def muy seen métier maanaam defuñu leneen lu dul daan seen doole seen wu ñax ngir mu ko neex la moom Aliou ba tax mu leen ciy jaajëfal ak di leen ci barawoo Cheikh mu ngi ci guddi gu gët setagul moom it di Cheikh homme bi nga xam ne dafee porté woon plainte Samuel Sarr ngir ñaari milliards yoo xam ne jàppoon nañ ne dañ ko luubal jële ko ci moom jëme ko ci Abdoulaye Wade ci jamono jëm fii nekk te loolee am na ci loo xam ne ak luubal la ko jàppe moom Cheikh Amar ci la daal di porté plainte jagleel ko ki nga xam ne moom moo di Samuel Sarr Samuel Sarr ci boppam moo wëlbati ko waat porté plainte kii di Cheikh Amar gannaaw ba ñu ko daal di jàppee moom Samuel Sarr daal di koy may liberté provisoire léegi nag Samuel Sarr dajale na ay dossier indi ay preuve yoo xam ne moom la teg ci taabal ji dem bind benn plainte am boo xam ne gannaaw ba mu ko bindee jébbal ko procureur de la république procureur bi dafa xool xoolaat jëf xool plainte bi ak li nga xam ne moo di dossier yi ñu dugal yëpp ci la daal xool nag daal nangul Samuel Sarr boobu la plainte ba noppi di demande ñu jàppal ki nga xam ne moom di Cheikh Amar indil ko ginnaaw ba ñu koy jàpp nag la koy toppe moom Cheikh Amar mu ngi tentative d'extorsion de fonds faux en écriture privée moom mi di Cheikh Amar beneen ba ca topp itam moom di dénonciation noppi itam enquête ko laaj ko ana fan la teg yenn jëf yi nga xam ne jëf na ko Samuel nga xam ne moom la teg ciw ndoddam li nga xam ne moom la ko tuumal loolee lépp la ko gaay nar a toppe loolee mooy li waral Cheikh Amar jamono jile mu ngi ci guddi gu gët setagul ak lu coow bari bari bari bari bari bari bari nañu bàyyi xel le 14 mai 2022 Wally Ballago Seck le prince des Faramaren war a nekk foofule ca Milan Italie am ngeen gan gu rëy rëy rëy Wally Ballago Seck ca Italie ndaw lu rëy le 14 mai 2022 maa ngi ci biir jërë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 Dakar, notre plateforme d'information.